Thank you. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk internet di seetaan Kifne TV tey suñu émission jaar-jaar El Hadj Mouhamadou Ngom ak mag ñi ñu ngi dalal suñu benn papp bu ñu naan Birane ngoone Seck nekkoon ancien adjoint maire bu Tëngéej jamonoy Mbaye Jacques Diop nekkoon aussi ku xamoon góor gi ñuy wax El Hadj Mamadou Ngom te waa Tëngéej gën koo xam si El moodu Ngom ñu bàyyi ko mu nuyoo. Assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di nuyu di am mbégte également ci ñëw bi ngeen ñëw sét si ñu pour ñu waxtaan tuuti ci li ñu xam ci El Hadj Mamadou Ngom parce que ñun non lañ ko doon woyé El Hadj Mamadou Ngom ñenn ñi di wax El rek euh, yëm ci mais xam nañ ni El Hadj Mouhamadou la tudd euh, nekkoon fi kilifa gu mag kilifa diine donc ñi ngi contane di wax ak seen internet ci tuuti li ñu xam ci moom. jërëjëf papa ginnaaw bi nga nuyoo ba pare wala ñoo dugg suñu émission jaar-jaar bi dañuy njëkk laal si wàllu mairie bi nga yor nekkoon sur Rufisque jamonoy Mbaye Jacques Diop ñu lay wax lan moo la si gënoon a marqué. waaw euh, <laughs> Mbaye Jacques moom beneen beneen affaire la parce mom bi muy laaj Tëngéej boobu ñun on avait je crois 24 ans ou 23 ans donc bi ñuy ànd ak moom du woon cër la ñuy wut wutu ñu woon euh, wutuñu boobu am nañu liggéey sax wutuñu woon liggéey wutuñu wutuñu ab pal mais ci générosité ak euh, formation bi mu def ci ñun moo tax bi mu demee ba jot dëkk bi mu am confiance ci ñun dénk ñu ay responsabilité def ñu adjoint au maire à la ville mais adjoint bobu nak dafa yemuloon ci adjoint rek parce que on était délégataire de signature dafa amone confiance bu bu bari ci man ma di ko ñaanal yalla fi mu tëdd yalla na sunu borom doli leeram ci ci mom c'est quelqu'un qui m'a façonné voilà. jërëjëf légui nekkoon nga fa adjoint maire mbey Jacques Diop ñu lay laaj aussi dëggam Rufisque demb ak tay ban changement mo gëna am waaw xam nga euh, nit ñi dañuy faral di wax ni Tëngéej su mag ñu jëkk ñi deewoon bu ñu ñëwee mën nañu dellu seen kër ma je crois que loolu wax bu bu bu yàqu la Tëngéej changé na bu baax a baax a baax physiquement euh, bi mbay Jacques di jot mairie bi à l'époque c'était la mairie c'était la commune de Rufisque et Bargny ñu am un budget de 300 millions boobu loolu la maire bi am comme budget ñuy wax ni Tëngéej dafa dafa salte parce que en principe comme Tëngéej dafa nekk ci demi cuvette ak les canaux yi nga xam ne nii pour ndoxu taw yi la woon population bi dañ ci branché woon seeni ndoxu égout parce que normalement canaux yi bu bu nawet amul warul am ndox mais ci indiscipline ak manque de civisme moo taxoon population yu bari def seeni ndox yi ci canal bi donc ku ñëw canal bi ngay gis te booba temps tamit euh, euh, Tëngéej dafa xaw xat parce que euh, sunu mbokk Lebu ni ñuy dëkke euh dañuy dëkk ensemble bon té lool c'était une formule sociale de ñi am ak ñi amul ñep dañuy bokk dëkk kenn du xam ko am ak ko ko amul donc ak géej gi tamit nga xam ni ci lañuy liggéey mo taxoon ñu concentré wu entre këri kaw këri suuf

parce que nit ñi dañu woon tëngëj problème assainissement la am or que tëngëj problème d'urbanisme la amoon il fallait urbaniser la ville donc euh, moom mu jële ko noonu parce que geej gi mi ngi mab kër yi nit ñi ngi concentré wu donc pour nga mën a dëkkal nit ñi il faut nga xal ci le créer Rufisque 2 donc à l'époque nit ñi ñi ngi doon fay fukki junni pour am kër léegi kër yoy ko ci fay 10 millions du lako jaay Donc, tu as le Rufisque en son temps par rapport à l'église. Le Rufisque n'est qu'un euh, ben hectare. L'église n'est qu'un 5 ou 10 hectares. Donc, surface urbanisée pour refus, il faut que tu aies Mais nous, nous avons un aménagement qui est à l'intérieur. Nous avons toujours un tolon pour que tu aies un tolon. Tu aies un dépassement, tu aies un changement avec Jacques tant sur le plan des infrastructures également, parce que caserne, bon, également, à euh, l'époque, gare routière bi, moom moko, moko moo ko Mbargane Diop moko ko parce que euh, euh, l'autre nationale ñoo ko jëkk defar mais moom bi mon ñëwee mu def priorité ak beaucoup de voirie aussi de na ko ci en tout cas mon qui ayam dal, tengage changé de de physionomie ci lu ñu xam lu ñu dund

il faut nga xal ay équipement yo xamni tay buñu bëggee dispensaire buñu ñu bëggee terrain de football hein buñu bëggee école yooyu yëpp euh, dafa englobé wu ci ci ci ci programme lotissement bi muy urbanisation de manière globale nga xam ni tey jii euh, fépp fu ñu war a def école boo ñëwee Tëngéej am na zone boo xam ni ci biir lotissement bi réservé nañ fa école fii réservé nañ fa poste de santé fii réservé nañ fa terrain de de de de football wala terrain de de handball bon bi mu aussi def a ay terrain que que, euh, je me rappelle euh, dans chaque commune faire na ba def ben à Dangu amna amna ben, na amna ben, euh, Cité Sokosim amna ben. donc il a ba pare Youssou ak stade Ngalandou Diouf bi moo réhabilité donc def na équipement yu bari il a fait beaucoup d'efforts mais li ci ëpp solo nag moi dafa xeex ak Sokosim Sokosim. Mm-hmm. parce que Sokosim, dañ fi nek, leur comportement colonialiste si j'ose dire et de ba léegi sax parce que ce ñu war faire, def ak li ñu produire ci ciment yëpp ak li ñu jël ci sunu suuf yëpp ak désagréments yi ñu posé taxul ñu participer au développement de cette ville. entreprise dafa am la ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. effectivement bon bon mais à l'époque donc, à l'époque bah, au magistère de Mbaye Bob est état bi théoriser la responsabilité sociétale de de l'entreprise mais moom il a mené un combat personnel pour que euh, taxi yi Sococim waroon a fay Tëngéej mu ñafé ba Sococim euh, fay ko Tëngéej motax bi mi bàyyi maire bi le budget était à 4 5 milliards ci ko xamni 350 millions la fi fekk donc mu ñafé ba euh, li Sococim war a jox Tëngéej il est évident ko joxu ko lépp sax parce que ba légui dess na mais lëm ca jël yëpp buñ ko bolé budget bi dem na ba 4 milliards bi mi dem lool la fi bàyyi mais Jacques Diop aussi a marqué son histoire et son empreinte dans la ville de Rufisque. waaw loolu nag don de Dieu, en quelque sorte le bien que euh, c'était un bagarreur. Mhm. Borom xam-xam la kat la mais. ñu fait ko aussi beaucoup na ci les porteurs de pancartes. de pancarte bien sûr hein donc euh, euh na sax ben association des porteurs de pancartes di di fàttali histoire. Mhm. ni Sénégal amee indépendance ak rôle yi mu ci joué. Mhm mais moom euh, mayu yàlla la am en dehors de ses capacités personnelles parce que li mu def Tëngéej keneen dootu ko fi mën def parce que keneen mënatu fee def lotissement bu toll nii bi mu fi def jox ko ay nit ñu dëkk fa parce que ku ko bëgg sax dootoo ko mën ndax espace amatu fi te à l'époque li taxoon mu gën ko def sax parce que au niveau de l'administration centrale état bi dañ daan toog fële ca Ndakaaru di dagg suufi Tëngéej yi di ko jox ay coopérative mu gis ni yeneen i bien que sénégalais yëpp ñoo yem ci suuf si mais euh, Rufisque ay bénéficié wuñ ci woon donc mu ñefe nag ba yaatal ko fexe ba doomu Tëngéej yëpp lu ci ëpp euh, am kër amna tay ño xamné xam won bu dul euh, amana duñ am kër donc te won fofu ci sur le plan social euh dafa defoon embauchement bu yaatu waaw fexé ba euh jël nit ñi parce que dafa wax ne bala nga defar dëkk bi da nga defar biir yi donc té boobu tan sukusim euh, euh du jël lu bari ay contractuel lay jël euh, Bata tejna euh société textile bi nekkoon fi Ecotaf tejna donc euh, famille en quelque sorte géej gi rek mo fi nekkoon ak quelques artisanat donc dëkk bi xawoon na touti mais bi mu fexé nak ba comme comme maire bi yokku mu def une distribution sociale c'est-à-dire embaucher ñu bari Euh, bu ko defee bu weer dee nga gis dëkk bi day day changé ñii di jënd ceeb ñii di jënd diwlin ñii et cetera et cetera et activité économique bi euh, yëngatu donc moom c'est quelqu'un qui a marqué la ville de Rufisque te loolu tamit yàlla moo ko fay xolam ci bëgg-bëgg bu mu bëgg Tëngéej ko moo tax yàlla may ko opportunité yooyu ak chance yooyu voilà. Major Diop nekkoon ne maire boo xam ne Tëngéej du ko gaaw a fàtte si maire yi gënoon am taxawaay si Tëngéej fii si la bokkoon. Euh, famille yu bëri tax na ñu bëri am liggéey ñu bëri am kër kon kooku kenn dootu ko fàtteeti ci Rufisque ku ne histoire Rufisque rek sa xel li mu njëkk a dem si Mbaye Jacques Diop ñu ko mu tuddoon Mbaye Babacar Diop. léegi ginnaaw bi nga waxee li Mbaye Jacques Diop defal waa Tëngéej si affaire urbanisme beeg Tëngéej ñi jox liggéey ñi may ay kër yooyu yëpp tey ji en tant que représentant APR fii si Tëngéej lan moo fi say ambition. waaw sunu ambition moom weesuwul euh, dëkk bi Tëngéej ak gunge le président Macky di ñaan yàlla également moom mu def ci Tëngéej loo xam ne nii euh, Mbaye Jacques dina tax bokk ci ñi sax mu koy def parce que man su ma demee APR euh, Mbaye Jacques moom ma wax naa dem jàppale Macky Sall bi ma ko waxee ma dëkk ak tantey jabaram ma dem ànd ak moom ñu bokk di di liggéey moo tax coow yu bari euh, dugguma ci parce que li am solo du coow li donc euh, Tëngéej nekk dëkk boo xam ni dafa neex defar contrairement ak ñu bari lu ñu xalaat parce que boo xaalee xotti mbedd yi lan moo des léegi defar tali yóbbu ndox yóbbu courant loolu su amee rek dëkk bi euh, naat nest pas aménage waa dëkk bi sànq wax naa ko nee naa aussi garab yi tamit dëkk bu amul garab luy lor nit ñi day bari poussière yi. Garabi, ci likay xex la bok euh, gaz carbonique bi garab ci likay xex la bok humidité ambiante bi garab ci likay xex la bok ba paré nit aussi dafa bëgg feex donc am ay place publique yu bax am ay tali yu bax am ay école yu bax am ay centre de santé yu bax am hôpital bu bax am également euh, développer économie locale bi parce que Tëngéej dafa bari ay artisans artiste xeetu artisan boo seet rek am na am na tëngéej li ëpp solo nag pré euh, Mbaye Jacques def na ko parce que xàll na bon sama yéene ci tëngéej tamit euh, comme Mbaye Jacques ci keppaaram laa laa yaroo euh, ma dëkk tëngéej sama bëgg-bëgg ci tëngéej naturel la mais moom tamit yokk na ci man lu bari parce que dama xam passion bi mu amoon ci tëngéej te daf ma ci doon forger parce que man même bu daan voyager man maa doon assurer intérim man lay délégué signature daana fi nekk sax délégué ma signature donc euh, daf ma doon ci bi euh, nit ñi ku ni dama bëgg en fait du doon maire moo am solo li am solo mooy bokk ci équipe bi dafa tëngeej benn siis benn nit moo ciy toog ñu suñu ñun APR ba doon maire doon APR ñun ñëpp ñu ci ñun ñëpp pour que dëkk bi vraiment euh, naat parce que dëkk bi dafa am cosaan dafa am aadaam dafa am ay réalité am quelques quartiers flottants yi fi des mën nañ ko restructurer aménager ko parce que bareetul parce que li tëngéej fii ba kunun ba ci autoroute ba ci tëngéej la bokk te boo xoolee diggante raay bi ak këri suuf matul 500 mètres te mën nga dugg lu ëpp cinq kilomètres te lépp ci tëngeej la bokk nga dem ba guy murit ginnaaw kër El dem ba quartier Cheikh dem ba jacaranda yooyu yëpp ci tëngeej la bokk bu dee côté ouest bi nga dem ba diggante tëngeej ak mbaaw loolu yëpp euh, dëkk nañ ko ay kër yu rafet ay kër yu baax donc ay infrastructure rek moo des te boo defaree infrastructure def un bon cadre de vie lii wërsëgu tëngeej nga wëccee ko tëngeej ba pare ñu laawante biir parce que ku falu rek gaañaa ngi gor say tànk pour say projet bañ a réaliser wu loolu tamit ci li yàqal tëngeej la bokk lu tarlir tëngeej rek loolu loolu loolu ci la bokk donc ñuy ñaan yàlla que président gis loolu moom tamit comme ñun dañ koy jàppale ci réew mi moom it mu jàppale ñu ci dëkk bi bu ñu jàppale ci dëkk bi rek wàccam ñu. léegi nag ñu ngi dugg suñu deuxième partie émission mi ngi koy waxee jaar jaaru El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom ak mag ñi tey benn mag lañu seet si mi Papa Birane Ngone Seck turam dëgg-dëgg di Ibrahima Seck. day ñu koy laaj ci nan la def ba xamante góor gi ñuy wax El ma Mamadou Moustapha Ngom te waa Tëngéej gën kaa xam ci Modou Ngom. waaw vraiment laaj nga ma laaj boo xam ne nii macha allah neex na ma lool ma di ci sant d'abord yàlla ndax sóoru ma woon dans ma pour yàlla may ma une possibilité ma témoigner ci nitu yàlla. parce que loolu laa xam ci moom muy El Hadj Mouhamadou Ngom donc euh, en de cela man dafa am lu ma ko ameel parce que moo ma jëkk wutal liggéey ci àdduna dama génn juste école mu boole ma ak Moustapha Fall benn xaritam bu nekkoon délégué euh, Sodeva lag régional mu boole ma ak moom kooku ah, jël ma yóbbu ma Sodeva sama premier salaire ci aduna fofu la ko am ba ni mu fa ñewat jangi ci wat eh, delu école jangi donc euh, lolu ku la wutal place wala fi ñoko wax ku la may jabar ku la may kër mëno ko fay sa dund mais benen bi ëpp solo nak parce que lolu matériel la aduna la quoi te ci la bok parce que sa aduna bo amé lo japp sa jaamu yalla dina mëna jappandi mais defar jikko nag moo ëpp solo defar ruu te mën naa ni euh, El Hadji Modou Ngom euh, sunu gëm-gëm euh, ci ñi ko forger la bokk. il est évident que duñ judd doon jullit judd fekk sunuy way jur doon jullit doon ay murit mais lu ëpp ci sunu formation ci El Hadji Modou la la la jóge

di dem di di di seeti Alaaji Moodu Ngom di seeti bopp du moins ci kër Alaaji Moodu Ngom moom nag mu mu nekkoon euh, nitu diine jox boppam lépp yàlla de telle sorte que li ñu doon doon xale proximité bi ñu am ak moom daf ñu dëddale ak fo parce que dafa dëggoon te euh, doonul woon masla lu jëm ci mbiri sunu borom loolu da ko fonkoon lool Euh, fekk nag lu jiitu loolu tamit sama beneen euh, rakki papa boo xam ni moom tamit daf doon sonn ci diine muy Pape Daouda Wade këram nekkuñ fii ci ginnaaw ak sama beneen doomu ndey papa muy Vieux Thiam ñoom dañ doon fréquenter El xam naa source bi foofu la jóge mais man personnellement euh, li ma yóbbu mooy ànd buñ doon ànd ak Mamadou ak Mamadou Bopp loolu moo tax ñu xam El Hadj Mouhamadou Ngom. léegi ngeen xamee El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom léegi ban jàngat ngeen am foofu ci biir euh, xamante boobu. waaw njàngat bi euh, bari na mooy li ma sànq dama ni pas-pas ak gëm-gëm euh, ku la ci dimbali ba nga mën a gëm yàlla mën a ragal yàlla loolu rek doy na. te moom ni mu doon euh, prêcher c'est-à-dire ni mu doon waaraatee ni mu doon jëlee affaire yi yow da ngay tiit da ngay ragal waaw ni mu doon poser problème yi ni mu ko doon ëndee yow da ngay tiit da ngay ragal doo bugg lu dul euh, euh, ëllëg nga mucc parce que ni mu doon prêcher da nga naan mucc day jafe donc dafa amoon pédagogie bu bu bu bu doy waar. wane tamit jikko boo xam ne nii képp koo xam ne nii tu es épris de justice koo xam ne da nga bëgg dëgg xam nga dëgg euh, euh, ñëpp xam nañ ko suñ ko waxee rek boo amee tegtal di nga xam luy dëgg lu dul dëgg bi ci jiitu moom euh, mosul laaj benn nit afin ci lima ma xam ñaar xam nga sëriñ su bari dañuy ñëw laaj la àddee laaj nangam laaj nangam nangam nangam mais mom il ne demandait rien à personne ba pare dila gindi pour bañ ku la nax dila la xamal ni soo jamo yalla sa affaire bopp la du affaire nit ci ay nit yo xamni ay jaamu yalla la ñu ñu wara omat li tax ma dugg ci poñ boobu sax modi ni euh amna ño xamni dañ doon wax ni elage dafa wéddi serigne ci ce qui est totalement faux man dama ko dund man limay may wax ni ne na rasa deme noonu mais euh, am na bés bi nit ñi wax noonu parce que da doon gindi nit ñi ñi nga xam ne dañuy jabaraat ak yooyu ak sëriñ si nga xam ne nii lañ ci tur euh, rek di exploiter nit ñi ni mu doon leerale affaire yi ñooñu dañ koy def noonu dañ koy def <laughs> dañ koy def noonu quoi di ko tuumaal pour bëgg nit ñi euh, retiré wu mais euh, te wax naa ko à l'entame que man euh, taalibe sëñ Tuubaa la kii sama buy laa ko laa ko jële mais teewul liñ ko daan tuumaal yëpp sama gëm-gëm da daan gën a accroché wu ci moom ndax traitement bi mu doon def ci sëñ Tuubaa parce que am na bés mu ñëw rek aalu quoi ñëw këram rek fekk ñun ñu war def guddi mu ñew rek tang jeur parce que day jek jek tang euh suko defé day hypnotiser ñep quoi kenn du mëna wax mu tang méré bopam mu wax ni euh, yonent bi moko yedd parce que dafa romb ci suko sim bi euh, poste courant bi foofu am ñuy euh, ay ñuy way ay wayu murit bon comme nak man janguma mais xamna ni lakal fadlu ya muhtar yaa seydil waraaya boobu ñu doon woy loolu lañ doon woy nee na mu romb taxawul tem yonent bi daat koy fay ñu ne ko yow xanaa xamoon ne man lañuy ñuy tagg <laughs> loolu mu def ko choc mu di ko rëccu xam nga kon kooku mënut a bañ sëñ toog naa tamit mu def une description physique de sëñ Touba muy ñuy ci kar ba yàgg rek mu aalu mu ni sëñ Touba nii la mel textus waxe taayam wax poam wax lépp xam nga kooku suñ la dafa bañ sëñ Touba nga xam ne ñu ko def ay waxi caaxaan lañ am na tamit beneen événement boo xam ni duma ma ci tudd tur quoi parce que du ko leeral trop sax parce que booy wax taarix mën nga blessé ay nit te lu passé passé na mais dama koy def à titre illustration rek am na bés ay nit bëgg a jàkkaarloo ak moom wax ni dafa contre sëñ Touba bés boobu man. bi ñuy dem këram ci kii boobu da doon taw guddi waajuma boobu xam nga bu fekkee dangay ngay fréquenter nit bañ ni tey bésu xare la soo toogee rek dañ naan dañ naan da daw mais li muy taw noonu dañoo xuus man ak suma benn xarit yoro ñooy ànd toujours ak mbay mbay papay maram bi boobu dañuy dem chaque ak ñu doon tëkku ñëpp dafa mel ni dañoo seddu keroog ci mbé ci bëcc ci biir kër gi lañ daan si kare mais dañoo génn ba pare na ki ko gënoon a menacé kooku boobu temps li mu yor ci doole macha allah duma wax nag li mu am su ma koy indiqué rek ñu xam mais doole bi mu yoroon bés boobu El Hadj def ni diw mii dina dem ba dootul yor 15 te loolu dund dañ ko gis naa ko <laughs> donc. Euh, Euh, euh, loolu yëpp pour wan la ni euh, vision boobu aussi la amoon ci Seydi Hadji Malick moom la amoon tamit ci Cheikh Omar Foutiyou Tall parce que ak ci Cheikh Hadj Jëli Jëla nitu yàlla yëpp daleen joxoon respect bi ñu moom mais nag moom li ko yàlla joxoon tamit mu xam ko xam nga nitu yàlla moom du wedd nitu yàlla mais du tee li nga xam ne yow yaa moom sunu borom jox la ko nga nga nga nga xam ko parce que bi mu gisee Cheikh Omar Euh, Cheikh Omar dañu ko pour mu jébbalu ci moom mu ne ko man yonent bi muy sama sëriñ du ma ci kenn. waaw euh, loolu tamit fekkee naa mu mu wax ko euh, beneen bi des ci li ëpp solo xam nga kiraama yi sax kiraama yi sax am na solo mais tawhid ak dëggu moo ëpp solo ak noo mëntit mel ak lu la yàlla booleeg moom boo jàddee ci diina rek ci saa si day mel ni dootul doon moom te day xat nga defe ni kii nitu xadar la te nit ku woyof a woyof la gis nga fii nii toog na fi ba tey saal bi fële booba yokk guma lii fii ma def nii sama photo benn photo moo fi nekkoon mais booba lii bokkul ci kii bi fa la mur bi amoon bi ñuy defaraat batiment bi la ko maçon yi euh, yàq moo tax keroog bi ma kii mayee beneen photo dama koy cadré waaw amoon naa dama ko cadre bu rafet mais yàlla dox na ba amaat naa ko te te wutuma ko kon ma di ci sant yàlla mais lu ma xew ci kër gi fii ci famille bi parce que suñu famille yëpp dafa am ak ñoom kóllëre ki ci gën a ndaw xeebu la ku ci am bés rek dina ñëw bokk ak yow sa sa loolu nag aussi euh, lu am solo la moo tax bi nga àndee ak maram mu wax ma ma ma kontaan ci loolu parce que moom euh, ma rakk mi ngi ci biir muy Jibril Demba samay jarbaat ñoom Cheikh Wade ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mais maram mi maag yaayam ñoo bokk ndey ak baay kon bu ma ko gisee muy yëngu ci mbiri El loolu daf may neex lool parce que El Hadj la ci dafa am cër ci kër gi waaw kër gi fii nii daf fi daf fi am cër donc euh, ñu di ko ñaanal yàlla moom tamit euh, fa mu tëdd yàlla yàlla dolli leeram euh, ci àdduna tamit toujours xam nga am na mu Dia du ma sori ci biir détails léegi ginnaaw bi nga décrire El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom ak ni mu meloon ni meloon ci diine gi si këru diine yi aussi ak comportement envers l'islam ak tawxiidam yooyu yëpp jawal nga ñu kat moo nekkoon El moo du Ngom léegi nag dañuy ñëw ci événement yi nga xam ne marqué na la moom ci eh, marqué na si El Hadj El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom dundam événement yooyu marqué na te nekkoon nga si témoin waaw vraiment loolu aussi euh, am na détail yoo xam ne sax du ma si du dugg parce que booy wax ci nit mm-hmm. dafa am foo war a yem du dëgg mais li nga xam nag yow fekke nga ko dund ko mën nga ci joxoñ boo ci joxoñee borom xel yi euh, dinañ xam parce que du lu du lu ëpp solo li ëpp solo wax naa ko mooy tawhid bi mu dund ak fonk mu fonk yonent bi ak nangu gi mu nangul boroomam jullit moom loolu dong dong dong dong moo am solo ci moom yi ci des yëpp ay décor la euh, ma wax ni euh, xam nga aussi nekk xale fekke ndimbalu suñu borom la Euh, Mamadou Dia bi mu génnee kaso moom it yàlla na yàlla dolli leeram nitu yàlla bu baax la euh, euh, dafa ñëw kër El Hadj Modou yu bari jaar na fa loo xam ni duñ ko duñ ko nettali ci événement 62 yooyu te mi ngi koy wax te Mamadou Dia ngi toog te weddiwu ko mais ba fa bi ñuy waxtaanee ba pare ba ñu gind ko Mamadou jaar ni ko dama bëgg ñu fàtte lépp ñu nekk xarit xarit. ci la ko Mamadou ja euh, paasal ñu ànd dem euh, Jérusalem def nañu pays arabe yooyu yëpp donc loolu fekk naa ko ci digganteem ak ñi yor nguur digganteem aussi ak euh, position yi mu amoon ci Abdou Diouf ak ci Senghor yëpp yooyu yëpp fekk naa ko mais amul solo am solo gi mooy wane ni moom xoolul homme d'état xoolul ko am alal dafa xool yàlla rek ci ay xaritam tamit amoon na ñoo xam ne dañ yàlla da leen jox wërsëg mais xam nga poosu nit soo ko waxee te nit ki waxu la ko dina xam ne xam nga di leen wax yéen ñi bu ngeen waxee alhamdulilah rabbil alamin yàlla du nangu da ngeen war jël di joxe ni nag waxuma ngeen jox ma bu leen ma jox mais day leen seet ñi néew doole ngeen di leen dimbali parce que yéen ñi ku ci wax alhamdulilah rek yàlla du ko nangu loolu fekkee naa ko ñooñu toog ma toog te ñooñu weddiwuñu xam nga loolu tamit <laughs> wane na ni boppam tax ko jóg te wax naa ni man moomu wutal place Tafa moomu suma mag boobu ak bopp yëpp moo leen wutal place ñëm fa wutaloon place ci jamono boobu ëpp na ay téeméeri nit te kenn mësulee cee wax ni man boog mësuma fa yokk jox ko un franc du kenn ku mu wutal teraanga nga jox ko teraanga day def rek ngir yàlla pour dimbali jaam ñi pour ñu am xam nga loolu aussi Euh, fekke naa ko bi nga xamee nag ni euh, euh, am na benn bés mu aalu mu wax benn ñaan nañ ko ñaan mu ni ñaan boobu fekk affaire événement daal xaw mu xewoon ci Sékou Touré affaire yooyu mu ni Sékou mii kenn du ko rey te booba temps ñi koy ko bari na tubaab yaa ngi ci kawam ñëpp a ngi ci kawam maa ngi toog mu ni Sékou mii kenn du ko rey yàlla koy rey dee naturel lay dee ndax ki ko ñaanal Cheikh Fanta di la tudd kooku noonu dafa jël ñeent fukki nit ku nekk jàng ñeent fukki kaamil mu ñaanal ko lim mu koy ñaanal looloo fal Cheikh toure mu ne ci pal googu tamit lay dee mais nit du ko rey loolu tamit euh, <laughs> fekke naa ko fekke naa tamit ay shérif yu jógee Màkka ñëw am ñoo waxal seen bopp parce que euh, guddi àjjuma dañuy jàng ba pare euh, Maguette saw mooy doon def xat euh, xatmul xuraan bi muy xaritam bu baax ku neex baat bi ñu defee xat mu xuraan bi avant ñuy sikar après nag shérif yi présenté seen bopp wax ni ñoom li tax ñu ñëw fi dañu gis yonent bi sallallahu alayhi wa mais du ma dëggu nii loolu la muy euh, soit mu dekk Alioune Abi Talib wala Ousseynou wala Assane daal parce que xam nga boobu j'étais très jeune mais ñett ñoo ñu génnu leen ci waa Aliou Baytul Muxtaar yooyu mu ni yonante bi teg ku fii kenn ci ñooñu ñett ñooñu may tudd dama xamatul kan la ci ñoom ñett teg ni El Hadj Mamadou Ngom ñu ne yonante bi kii kan la kii xam nañ ko mais kii xamuñu ko mu leen kii suma xarit la looloo tax ñoom ñu dagg bie laajte ba xam fi mu nekk ñu ñëw Euh, seet ko fekk naa tamit beneen shérif bo kii moom gànnaar la jóge ñu toog jàng alxuraan bi ba pare def xatmu bi mais bi ñuy commencé jàng alxuraan bi mi ngi xiin di ngelaw ngelaw bu metti lëndëm kërus bon yaakaaroon nañ ni sax balaa ñoo jàng ba pare mu taw wala leneen mais shérif bi tamit dafa bàyyi bañ jàng xatm bi ba pare pour warmaal alxuraan ji mu ni nañ fat téere yi nañ jël téere yi ñu fat ko pour bañ mu tawee téere yi di di di di tooy man mii ci ñu doon fat téere yi boobu étage bi étage bi féete ni mi ngi doog a pare man ci ñu doon fat téere yi ci la bokk mais dañu fat téere yi toog avant ñuy sikkar rek asamaan si wuri ngelawatul xiin wi dem yoonam ah ñu continuer sikar sikar sikar ba wa ba tej ba def suñu ñaan euh biñu waré ñaan ba tej ba waré ñaan shérif bi mu ni nañ ko nañ ko may musa ni ay cadeau ñu jox ko mu ni mom dafa rus ndax euh sëtu yonent bi la te warul wax muy deñ te xamoon na day taw motax muy nañ pour bañ téere yi euh, tooy loolu nag da ci am kersa parce que daf ko wax te loolu nekkul élage ni ko yow boo soxlaa sa maam ma soxla ko du la wisi ci man lay ñëw effectivement li nga wax dafa naroon a taw mais li nga ko wax sama kanam moo tax suñu borom euh, tawul après nag chérif bi def na ay bëyit euh, way ko élage Mouhamadou Ngom yooyu yëpp c'est des péripéties yoo xam ni dund nañ ko te exemple yooyu tamit li tax ma joxe ko comme comme taarix bon du du du pour wax kiimaan rek quoi c'est pour montrer la dimension de l'homme li ko yàlla jaral ak euh, ni mu mel ci borom ak dëggoom suñu mbokk internet bi waxtaan bi mi ngi tiré à sa fin dégg nañu Papa Birane Ngoné Seck ñëwaat na si kan mooy El Hadj Mohamed Moustapha Ngom ñu ko daan wax El Hadj Modou Ngom ñëwaat na si aussi rapport yi mu amoon ak Mbaye Jacques Diop ak Mbaye Jacques Diop la doon doxalee Tëngéej ak fi mu yóbbu Tëngéej ñëw na ci tamit élément événement yi gën a marqué yi ko gën a marqué si diggante moom ak El Hadj Ngom lii mooy émission jaar jaar fexe nit ñi xam kan mooy El Hadj Modou ñu ngi leen di waxati jërëjëf ba beneen ak beneen mag incha allahu rabbi Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Amen.